ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indil na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant chaque x di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ku toog ci seen bureau Core T4 Core x ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di ip boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gii leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorer votre quotidien. wa anna al masajida lillah innama yaamuru masajid allah man amana billahi wal yawmil axir comme idaafatu tashrif la ñu ni loolu moo ko jox daraja ju kawe ndax dañu wax ne abu jahlin genn wàllu turam moo ko alak ndax lañ ko laafal moom moo baaxut du dàqonteeg nag li nit di wax naan jàkkay nangam loolu dàqonte wut ak ñu ne jàkka ji yàlla moo ko moom jàkkay njenn wala ñu ni fii jàkkay sëñ bu mag bee léeg-léeg nga daje ko na jàkka yàllaa ko moom kooku ñaar yooyu bokkuñu bii ala sabili taarif la da ngaa bëgg a xamal waa ji ne ko jàkka ji njenn la nekk si barab na ndax boo noon jàkk yëpp yàllaa ko moom ñun la foo dëkk nga ne maa ngi si jàkkay yàlla ji waa ji mën naa wër ba sonn waaye doo xam fi nga nekk kon ñaari laa fi euh, bokkuñu te itam wara fala tad'u allahi ahada waree su faa def itam lu dul jaamu suñu borom tabaraka ko taala jàng alquran jikkar ak lépp loo xam dafa aju si jaamu suñu borom tabaraka wa taala waaye wërta nekk intérêt yi kenn nit pour àddina masaalix boo xam sax si rek la aw dunya wi pour benn nit moom taxul ñuy wax jàkka jàkka moom day nekk loo xam ne bu sotee njariñul julli lépp lañ fay waxtaane loolu moo tax yonte bi alayhi salaatu wasalaam ni bu ngeen gisee ku ñëw ci jàkka di jaay na ngeen ko ñaanal ni ko li ngay jaay yàlla na lamb bu mu jar waaye bu ngeen gisee itam ci jàkka koo xam ne dafay laajte lu réer moo xam ak jur la wala caabi otoom ju réer lool da koy gis yu bare bari ci ay jàkk ñu di ko def naan diw caabeem dafa réer ñu di ko wax ci rajo yi jàkk nga dégg ñu naan diw nanga dafa réer wala saagam dafa réer ñu di ko jaarale si rajo yi jàkk loolu wuute na ak li nga xam ne moom la yonte bi alayhi salaatu wasalaam jàngale loo tax mu ne ida man yabiu aw yabtaaxu fi lmasjid fa qulu lahu laa arbaxa allahu tijaratu wa ida raaytum man yanshudu dalla faqulu lahu la radda lahu aleyk foofu lañ sukkandiku ba wax ni kon jàkk wari safaa def loo xam ni day doon intérêt boo xam ne bu sottee ci jenn jëmm rek lay dellu wala mbirum àddina rek lay nekk waaye na nekk loo xam ne daal day nekk am loo xam ne njariñul ñëpp la muy jaamu suñu boroom tabaraka wa taala tedd nga googu itam nga xam ni mbokk yi jàkk am na ko moo tax yonte bi alayhi salaatu salaam woo si jullit yi ngir ñu farlu ci bu baax a baax ci taxawal jàkk ngir ay ngëneel yu bare bare yoo xam ne borom bi tabaaraka wa taala def na mu nekk si biir tabax jàkk ndax comme mooy li gënal suñu borom tabaaraka wa taala ci kaw suuf moom moo digle ni nañ ko tabaxal ay këritam itam ci kaw suuf waaye loolu lépp itam mën naa duggaat na si hadis bi yonte bi alayhi salaam wax ni nit bu faatoo jëfam yëpp dafay dog ba mu des ñett doom ju baax jum fi bàyyi mu di ko ñaanal walla xam-xam bu mu fi bàyyi bu am jariñ njariñ ñu di ko jariñoo waaye tam sarax bu mu fi bàyyi muy daw sarax boobu boroom xam-xam yi tas nañu addis bi leeral ko ci ay anam yu gën a yaatu ba àgg na ci fukk ak benn yoo xam ne jaam bi bu ko defee wane ginnaaw àddina yool bi day woy di ko fekk ci euh, fa mu nekk te sëriñ bi andi na ko ci ay abiyaat bokk na ci yooyu tabax jàkka waaye tabax ab jàngukaay bu nuy jànge waaye gas ab teen bind ab kaamil ñu di ci jàng yooyu yëpp mat nañ fukk benn yoo xam ni bu ko jaam bi defee bu làqoo génn àddina yiw wi day wéy di ko fekk ci fi mu tëdd du tàqalikook moom benn yoon muy sadaxatun jaariya kooku jàkka day dugg si biir waaye sa kër itam nga defar fa am néeg boo xam ni ak gan gu dox ba agsi fa rek tumuranke fanaan fa loolu aw yiw la woo xam ni boo wane woon ginnaaw itam muy wéy tuyaaba ja daf la way fekk boo ko dee lim mat na fukk ak benn waaye comme solo si waxtaan wi ci jàkka la jëm ak li si aju manees naa xam ni benn yooyu rek jàkk ci la bokk waaye mbokk yi waxuñu sax tabax jàkka waaye wut ab làmp muy leeral jàkka ji rekk ngëneel yu bari am na si ndax am na benn saxaabi bu ñuy wax Tamimu Daari ku ne xam na ni ndaw la ñëw na ci madinatu munawwara jàkka yonte bi alayhi salaatu wassalaam ay cari tàndarma wala ay say mat moom la ñuy taal pour jàng wala pour julli moom mu gis ne xet gi xetu saxaar si dafay lor yonent bi alayhi salaatu salaam waaye dafay lor sax euh, jullit yi nga xam ñu ngi ci biir jàkka ji jaral ko mu dem ba Saam jënd fa ab làmp boo xam làmp pétrole la boole si akub mees ak yi war a àndal yëpp bi muy agsiwaat madinatu munawwara mu tombee ak guddik ajjuma bi mu ñëwee mu wax ngóor si ni ko demal nga taal lamp mu defal ko taal ko bi yonent bi alayhi salaam ñëwee jàkka ji leer te saxar amul mu ni man faala hada ku def jëf ju ji ñu ni ko faalahu ya rasulallah mu daar ku ñuy wax tamimu daar day muy sahaabi bu ndaw bi moom moo taal làmp bi yonte bi alayhi salaatu salaam ni ko nawwartal islaam nawwaralaahu alayka fi dunya wal axira naa xam ne leeral nga lislaam maa ngi ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu leeral si addina ak sa alaxira ñu ko am amma innahu law kaanat lii ibna la zawajtukaha tey ji su ma amoon doom ju jigéen danaa la ko may jëf ju kawe jooju ab saxaabi yu am na ko ngir liggéeyal yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax nañ ni booba am na benn sahaabi yi bu fa nekk bu ñu wax nawfal ibnul ibnu abdul muttalib ni ko man day am naa doom jigéen ma nga sama kër loo ci digle mën nañ ko def ñu indi ko ñu may ko ko ala nafsil makan ci fi toog ñu fasal ko ko loolu si nga ne li la bokk waaye ku ñuy wax alxasanul basri itam muy nit ku ragal yàlla wax na ni can gi nga xam ne boo ëllëgee nit ñi danañ ko joxe pour mën a am ci jigéen ñi ajjana yi nee na buub jàkka si la bokk ak dundal ko di fa julli julli juróom waaye di ko setal alxasanul basri nee na loolu mën naa doon ak can ëllëg pour nga mën a am ci jigéen ñi ajjana yi waaye ku ni wax anas ibnu malik itam nee na boo jëlee ab làmp def ko si jàkk li fi ak baa ngi fay nekk malaayka yi dañ lay ñaanal ñi yanu xaras itam dañ lay ñaanal kon mbokk yi ñu xam ni jàkka jëf ju réy la borom bi tabaaraka moom moo ko bëgg ba tax ku ko ko ak si anam goo ko ko bëggale rek séntu ni tuyaaba ju rëy euh, mi ngi lay xaar bokk na say itam ngëneel yi nga xam ne jàkk am na ko ku ne xam na ni si madinatu munawwara am na soxna su fa nekkoon soo xam ni am màggat la ci niñ koy waxee daanaka sax nekkul woon ci askan woo xam dañ koy tiitaroo di ko bàyyi xel ndax loolu dafay am si àddina la leen gis askan woo xam daanaka lu ñëw dañ leen di fàtte duñ leen sóoraale ci dara waaye moom amoon na xelum madinatu war saa su ne mu dem di ko bale Ah, di dindi salte salte ya fa nekk bi yàlla dogalee mu faatu ci ak guddi ñu wax ne saxaabi saxaaba yi waajal ko denc ko bi yonte bi alayhi salaam xëy see laajte ko ci wax ju xaw a gudd mu ni leen ñu ne ko moom kat dafa noppalu guddi ñu bañoon laa lor moo tax ñu waajal ko denc ko mu ni leen fan la nekk ñu wan ko ko ak saxaaba yi dem ñaanal ko yasawar yëpp mu defal ko ko te loolu ci toppatoo gu mu doon toppatoo jàkk rek moom moo ko waral yooyu yëpp nag nekk ay bind yoo xam ni ku ñu defal lu mel nii ci sa am penc am na lu baree bari loo xam ne mi ngi la si xaar lu koy gën a yokk ab taar waaye lu koy dundal jamono bu si nekk ñu ngi la si xaar te mbokk yi jàkka dañuy wax ni lu am solo la ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu gàddaayee Makka dem Madinatu Munawwara xalaat bi mu njëkk am mooy taxawal jàkka foo xam ni jullit daañu fa mën a daje di def julli juróom waaye daañu fa mën a daje di nos seeni mbir waaye daañu fa mën a daje itam pour gën a mën a xamante moo tax bi mu wàccee Madinatu a xalaat bi mu njëkk am mooy defar lu mel ni jàkka mbokk yi ñoo xam ne jàkka ëpp na lépp si Sénégal li ñu koy doyee damay wax ne jàkk moom ëpp na loolu nit ñi moom ñaare liñ si xam mooy bu julli jotee ñu noddu ñu néew julli ñu tëjaat dem waaye xamuñu ni école jàkk école la ndax yonte bi alayhi salaam fi la defare saxaabi yu bare bari si jàkk la leen defare kon ñoo xam ne jàkk ëpp na ubbi rek julli ku ne dem waaye mën nañ fay daje di def ay waxtaan waaye mën nañ fay daje itam di jàngale xam-xam waaye mën nañ fay daje itam di yee nit ñi si si seen diine moo tax ñu ni jàkka ëpp na li nga xam moom lañ koy doyee ndax boo demee si sayhul muslim hadis bi wax abi hurayra moom moo ko nettali mu wax ni yonte bi alayhi salaam nee na aw nit du daje mukk si jàkka di jàngalante di jàng téereb yàlla bi waaye di ko jàngalante lu dul ni suñu borom tabaaraka wa taala dafa wàcce si ñoom ak dal wàcc si ñoom yërmande waaye malaaka yi dañ leen di peeg itam di diglu li ñuy def di leen ñaanal ndax bu leen fàtte ni malaayika bépp barab bu sell bu ñuy tudde yàlla dañ fay nekk di diglu ndax ñoom loolu moo leen di dafa bokk si leen di dundal waaye itam ña fa nekk itam di fàttaliku yàlla itam borom bi tabaaraka wa la da leen di tudd ci ñi xam dañoo nekk si malawul ala addis boobu damay wax ne bu fekkoon loolu rek moom mooy njariñul jàkk dafay doy sëg mooy majtamaa qawmun fi buyutin min buyutillah yatluuna kitaaballah wa yatadaarasuunahu baynahum illa nazalat alayhim sakina loolu la borom wax wàcc day wàcc si ñoom ak dal te dal borom xam-xam yi dañuy wax ni mooy li nga xam ne boo ko xësee ba am loo ñàkk du wàññi dara waaye boo amoon lépp itam te amoo ak dal day mel ni amoo dara te dal googu suñu borom tabaaraka taala ne dinaa ko wàcce si ñi xam ne dañuy faral di daje si jàkka di nafarante seen diine waaye li ñuy wax yërmande itam te yërmande dañuy wax ne mooy moom mooy mutlaqul ata daanaka buñ ko xësee wax lépp luy ak may dugg na si yërmande xel mu dal mi ngi si biir yërmande wërsëg bu bari xam-xam bu barkeel njaboot gu jub soxna yu baax lépp dafay dugg si yërmande suñu borom tabaaraka taala kon mbokk yi loolu lu mat a bàyyi xel te dem jàkka kaaraange la ci seytaan ni ko Mawlana si Ahmad al Xadim waxe bi muy lim ñett yi nga xam ni boo takkoo ak ñoom suñu borom mën nala laa musal ci seytaane mu bindu ko ba sa njëkk jàkka la awaluha al masjid summa saani dawaamu zikrillaahi fi l asmaani saalisuha tilaawatu l bi tuuri maa tadaburil maani mu ni sakkaraha cheikhu samarqandiyu al aalimu al muqaddamu